léegi bu fekkee da nga nekk fa nga xam ne nag leer na leeral ne da nga war a def choc nan nga war a def xaw nga la jégg ni wóor la ndax di def choc mais nee nañ na préparé wu léegi bu la leeree ni kon da war a def choc kon nan nga war a préparé wu yan choc laay wax dañu nekk si àddina nekk ay mbindeef ci biir mbindeef yooyu nag buñ ko nekkee kon am na ko bind ki bind nag lijjantiwul nit ñi entre guillemets comme ni ko Seydina Limaamu Aliou Sall waxee si ñaari xutba sant ñeel na yàlla mi nga xam ne mooy dogal si nit ñi te moom kenn mënul ko dara na ku ñuy tiim di di di bindaa kon léegi kon mooy ak di ko doxalee ni mu koy doxalee kon ñun lan la ñuy def ñu nit ñi mooy dañuy si biir waaye nag comme nit insaan la dafay gaaw fàtte dafay nekk ci àddina fatte na nag dogal yi am na ku ko yor moo tax moom nit kooku day nekk ci àddina di rêve rek maa ngi moom depuis tout petit ah il rêve comme papaam dugal na ko muy jàngi école ak yooyu yaakaar na ne kon avenir bu assuré la yam mu nga toog du njort ne boo amee tel âge takk jabar am ay doom am kër am oto benn moromam du ko raw et tout ça mu rek. waaye est-ce que sa rêve yooyu dëppoon na ak li yàlla dogal ci yow léegi nag boo moytuwul li ma doon wax léegi moo lay dal mooy ay choc yu grand moo lay dal parce que da nga nekkoon ci àddina di dessiner sa vie nii laay mel nii laay def nii laay def te fekk yàlla pare na ay dogal moo tax nag mën naa naan boo deful ndànk rek choc yi dina la dal choc yi nag dama ko diviser en trois parties yenn yi ma tuddee ko ay choc divers muy choc yi nga xam ne yàlla moo koy dogal ci yow te kenn du ci dugg. fu ngeen ma bëggee dégg tey maa ngi nii ndeysaan maa ngi wér maa ngi wax di dégg di gis waaye lan moom moo wóor fii ak quelque temps si kanam yàlla sama bët yi du ko jël moom ko dootuma gisati lan moo ma ci wóor ki may déglu lan moo ko wóor ne moom ay bëtam dinaa ndax moom ba génn àddina xam ngeen ne sànq bi sax alayhi salaam yàlla teg na ko feebar boobu laata muy génn la ay bëtam muuru gisatu kan la wóor si kon mën toog di rêver di yaakaar ne benn fiwu luxe laay bu yàlla teg sa teg ma feebar boobu est-ce que man mii dund tey di wax rek ba daanaka sama lépp ci ay wax la tënk moo xam musicien moo xam sikkarkat moo xam waxtaankat yow sa àddina yëpp daanaka sa làmmañ wi lu tënk yàlla xëy tëgg sëg téye sa làmmañ a toog mën a wax loolu bu fekkul sookal bi may wax mu nekk ci yow sook boobu mën na laa yóbbu àllaaxira ak leneen ak leneen ak leneen am nga ñu fi tëx nga fi leneen ak leneen ak leneen mu ngi fi waaye yooyu dafa sori waaye léeg-léeg choc yi tamit choc divin yi mën na ñëw ci yeneen anam mën nga gis mooy ba ndeysaan liggéey liggéey liggéey ba sonn na dajale benn xaalisam jekk saa jël xaalisam investir ko ci benn projet moo xam ay ginaar la wala loolu ba projet bi commencé fructifier muy am xaalis di dem di dem di dem ginaar ya bari lool nga jékki saay gisat nawet ñëw rek rey ginaar yi ku ku fekkul sookul may wax nekk ci moom choc boobu boo moytuwul dina ko te bari na rek ñu ndeysaan ñi nga xam ne teg nañu seen projet di liggéey ba ñëpp naan macha allah ñu jékki saay gis lépp tombé à bu fekkul sookul bi may wax nekk ci moom day am problème. wala nga doon koo xam ne da ngay xëy yàlla dina teg natt ci kaw natt nga jóge ci dal ci lële nga ñàkk sa waajur bu góor di jooy pare boobu jigéen bi dem ngay pare jooy pare boo sa doom dem wala leneen choc yi di dal di dal di dal kon boo moytuwul encore une fois sookul bi may wax nekkul ci yow da lay gaañ yeneen choc yi nag maa ngi ko tuddee ay choc yi nga xam ne entonnoonu nit ñi choc yi nga xam ne ñun nit ñoo koy jegaan mu jël ci exemple bu mel ni trahison xam nga tey dañ nekk societé ba nga xam ne chaque jour wax ndeysaan les gens ne sont e pas reconnaissants ils sont ingrats nit ñi xamuñu gërëm amuñu kóllëre du coup da ngay jël léeg-léeg sa yaakaar yëpp nga def ko si nit yaakaar ni kii du la mas a war nga xëy un jour rek gis kooku war loolu léeg-léeg day def choc yu brutal ya nga xam ne sookal bi may wax bu nekkul woon ci yow rek mën na la gaañ moo tax léeg-léeg day dégg nit ñi dem sax balaa dañuy xaar te ab jullit war a faa yéeg waaye choc yooyu moo koy waral ndax sookal bi may wax nekkul woon ci yow.

jékki saa rek xëy gis ko si internet kan moo ko génn kan vocal bi am ay tànk dafa am ko génn moo tax da ngay dem ba li ma wax la fois passée dootoo sax xam ci kan ngay confié wu tellement les gens dañu lay wor beneen bi lekk-lekk li nga xam ne mën na rey nit muy li ñu naan calorie muy li nga xam ne mooy lekk-lekk ngay sosal nit lu garaaw société bi léegi da ngay xëy rek li may wax rek chaque jour ma wax yow da ngay joxante di fekk Facebook bi dañuy dégg na yow da nga def franc am nangam nga am na yow yëgoo ko woon sax lu garaaw maanaam nit ñi dañ lay loo xam ne wóoru leen di gën a doy waar nag ngeen baal ma ci kàddu yi mooy li plus li may dégg ñu koy tam nit naan nit ngeen baal ma de naan démb wala leneen lu garaaw nga dem bu nit ki xam fa mu dëkk mën a pour sax génn si nit ñi. kooku li nga ko teg noonu bu fekkee encore une fois amul sookal bi may wax kooku rey nga ko ba mu dee. am na benn kilifa bu ma juumul bu ka daan wax mu naan balaa nga naan reyoo nit mais na xaar ba dem yow mal xiyaam ba yàlla àttali ba naan reyoo nga soog a xam ne reyoo nit. ndax léeg-léeg di nga benn kaddu ba nga xam ne dina ko métti lu ba loolu yóbbu ko yow mal xiyaam nga yaakaar ne lu ndaw la nag. bu te wax dafa am nuñ koy defee parenthèse la xam nga ce n'est pas pour rien ñun ñëpp am suñuy kilifay diine dañoo jàng am ay gémmiñ mën nañoo wax mais du leen laaj seen bopp lan moo tax ñoom ñu préféré noppi pour lu ñu naan porte parole lan moo tax tey politique yu bëri mën a wax am gémmiñ duñ waxee am xam-xam te duñu wax boo waxee ñu ne dañu am porte parole laaj bopp lan moo tax ay école de communication am lan moo tax mu am école de communication lan moo tax mu am jàng nit lan lay waxee art oratoire lu tax mu am donc ça veut dire que wax mënul n'importe comment lañ koy defee dafa ay tekkin ba ñu duñu ñëw di wax rek di wax di dem te wax dafa am encore une fois ñu koy defee mu tëjaat parenthèse bi beneen bi mooy yeneen choc yi may wax da ngay xëy Maalik ak Maalik Maalik jote wala Maalik la daal waaye Maalik saa yu bu xëyee yitteem yëpp mooy nan lay def ba yàqal Maalik te Maalik pourtant defu ko daal yooyu choc boo ko moytuwul itamit da lay fi ma wax. ngir bañ a guddal naa comprendre ngeen exemple yi ma cité ba léeg-léeg sax mu dal la pour tëj foofu prison ñaata nit ñuy dugg prison si la nga xam ne wallaahi azim defuñu yëguñu defuñu yëguñu gis ngeen fi ne nga xam ne tëdd nañ 10 ans de prison ya nga xam ne après la nit ñi di leen ñu ngi soo a rendre compte que ne defoo woon daal xoolal ko kooku naxaat bi muy dund. bu fekkul Sonko ñu fay nekk wax mu nekk ci moom fan la jëm kon en en en grosso modo yooyu ku ci préparé wu rek da waaye léeg-léeg aussi nga gis ay régions brisées ngay gis ndaw ba nga xam ne ndeysaan mu ngi góorgóorlu lu mu mën ci wàllu liggéey njax la foofu ba ñëpp naan ak kii day moom dara mënu kaa tere waaye nga gis yàlla di bindul bindul ne day teg ay régions brisées wu lay yooyu itamit. boo amul sookul bu dëgër tey nga dee lan mooy sookul bi nag sookul bi moom mooy dëgër bi nga xam ne mooy nekk laytaay bi bëpp douanier bi ma doon wax du lor société bi docteur bi du lor société bi informaticien bi du lor société bi infographiste bi bi waaye yow mi nga xam ne tamit yàlla mu ngi lay teg ay nattu loolu du la lor na la benn bi mooy déjà nga conscience ci nga doon

muy njëlbéenu dénkaan bi Seydina Limaamu alayhi salaatu wa salaam dafa commencé rek nañ maa ngi leen di dénk ngeen feddali seen gëm même boobu fa la lépp ne nan gëm te jël mbir yi jébbal yàlla ndax la nag ngëm ngaa moo tax lépp la yàlla teg rek dañu koy dégg ñun xam ngeen ne sanga bi alayhi salaatu wa salaam si mu jëntalig dundam surtout kooku waaye kooku amoon loolu ko metti xam nga yàlla moo ñu wax nañu kii xarisun aleykum kii ku xër si yéen la te nee na xëral sanga bi ni ma ko doon firndeele mooy à chaque fois day bëgg nit ñi di dox si aw yiw moo tax ma njort ne sanga bi alayhi salaam bokk na ci li ko gënoon metti mooy ndab li ko yàlla defal mu taajal ko nit ñi ba bëri nit ñi réeree ko mënuñu seen ñëw xéew loolu lu ko metti woon la waaye teewul ñoom ngaa fena muy dëgëri lépp gis ngeen la ko yàlla doon teg xool leen xiif ba jëm sa màkka ak tey yónnente la leen xiif koy tey la mu bëm yàlla yebal Jibril ne ndeem soob na ndeem soob na ko moom mu ne xeer yi doon ay wurus ngir lan mu ne muy ngi dimbal si xiifam ba ngir muy ne dunyaay kër gu waaju yaakaar bu ëllëg kër gu baax moo koy këru ak di xool taar ba dafa amoon fondement bu dëgg muy ngëm gi sunu mag yee Cheikh Amadou Bamba Seydi Hadji Malick ñoom ñëpp doon souffrir ba ñu lay nettali seen i histoire booy booy lire seen i bind da ngay jàpp ne ñii mosuñoo dund souffrance ndax ngëm gi moo moo nekk si ñoom waaye gars yi est ce que ngëm googu mu ngi si ñun li sëriñ bi doon wax na ngëm yàlla googu mooy dem ba yow dañ lay anesthésier souffrance yi ngay dund yëpp dootoo ko yëg nit da def lu la métti sax nga koy ree mu mel ni yow bànneex nga ci am fekk da ngaa yëgatul dara nga ngëm nga. moo dëgg waaye gars yi ñun est-ce que suñu gëm dëgër na ñun lu ñu xoos nu ñëw lu ñu métti ñu jóyee ba ñëpp yëg feebar bu ndaw sax mënuñu ko mii li ma naan lekk-lekk yenn yi baaxul ci ab jullit ab jullit di jàmbat di jàmbat di jàmbat te xale yi koo leen dégg gis ne dañuy jàmbat feebar bu la dal sax nga dem statut souffrant wala malade te yow ma malade dans le bind statut yaakaar naa ne sa malade boobu dese naa wér ndax ñi feebar dëgg wallaahi laasim seen xel léeg-léeg du fa nekk ci connecté kon santal yàlla li ma bëgg wax kon mooy ngëm yàlla kooku ak ragal yàlla kooku nañ ko jël def ko suñu socle def ko suñu base def ko suñu fondement ëllëg lu ñu wutee rek day woyof bëri na wallaahi azim koy ñëw di waxtaan ak moom say problème wallaahi azim la mu am ci ay problème yow azaka loo wallaahi ni dina ñëw si yow di la gis ay problème bay jooy yow nga koy defal te wallaahi azim yow nga koy defal yaa ngi ëpp ay problème fuuf yoon waaye lenn moo fi nekk mooy li ma waxoon rek ngëm yàlla gu dëgër ba tax da ngay reetaan rek nit yaakaar ne kii dara metti ko ci àddina fekk yaa ëpp ay problème ñëpp léeg-léeg mu dal ma ma reetaan reetaan lu xaw léeg-léeg ma romb ndeysaan kuy yalwaan di la tàllal loxoom yor ay weccet ma reetaan reetaanu xol reetaanu xol bi li koy jur mooy dama naan kii de ku ko waxoon nekk instant bi moo ma gën a riche du ko gëm ndax mu ngi la gis sa habillement rek yaakaar ne amaana yor nga te fekk yow pas sax amaana yoroo ko ku jamono jooju moo a riche du gëm kon li fi nekk encore une fois mooy ñun dëgg suñu ngëm te lekk-lekk nag ma ne leen laaj leen seen bopp ndax addina bi ku yor dogal yi di dogal lépp lu ñu wax ci moom ñu koy def ba tax bu war ñoo teeral yàlla li ñu war ci moom yëpp est-ce que matal nañ ko ba tax war ñoo teeral yow nag boo conscient wee ci loolu lépp lu yàlla teg rek dana naan yàlla na maa teg lu ko pire ndax mérité naa lu ko pire ndax la nga waroon sa diggante mu amaana mataloo ko kon gars yi soyons reconnaissants dañoo bàyyi jàmbat bi te jéem a adapté wu ngeen baal ma ci kàddu yi waa Kelle Ba voilà alhamdulilahi rabbil alamin